yaa jëf lu kenn jëful yaa am lu kenn amul yaa man lu kenn mënul maam njaaratulaay yaa gis lu kenn gisul yaa xam lu kenn xamul penkook so woog ñépp naa cey jaaratulaay auzu billaahi min asseytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa min kulli man lam yuhibbani min arrijaali wan nisaa'i wa inni u'iisuha bika wa surriyataha min as-saytaani rabbi a'uuzu bika min hamasaati wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sangu sang yi sallallahu alayhi wa dañuy ñaanal seex muhammadul muntaxa yàlla suñu boroom yàggal ko fi ca may ko wér ba naal bi mu yéenee liggéeyal maamam xaadimu rasul yàlla kàttanal ko ak rakkam yi mu ko àndal yépp ak njabootug seexul xadim gi yépp di ñaanal sëriñ di ñaanal sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda yàlla suñu boroom yàggal ko fi lool ca may ko wér ba naal yi yéenee liggéeyal maamam Cheikh Ibrahima Fall yàlla kàttanal ko ba mu àggale ko ak sagoom ñuy santaat yàlla bu baax ci jotaay bi nga xamante ni fekkewaat nañ ko ndax amaana am na ay ñu ko teewe woon comme ñun yàlla dogal ñu jiituñu tey barsàq dañ leen di ñaanal yàlla suñu borom jéggal leen ca yërëm leen xaare leen àjjana bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy amaat mbégte bu baax a baax ci jotaay bi sell bi nga xamante ne amal nañ ko ci guddi alxemes bi nga xam ne mooy guddi soxna bu sa Jaariyatullah muy guddi gu am tawfeex goo nga xam ni képp ku yàlla dogal nga teewe guddi gi war ngaa sant yàlla bu baax a baax amaat mbégte bu baax a baax ci jàkkaarloog soxna jaare yu sell yi macha allah ak mboolem koo xamante ni dagg nga sa yitte ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi di beral sant waa site bi nga xam ne moom lañ àndal di waa Rafah TV macha allah liggéey bi rafet na leer na yal na yàlla kàttanal leen ca dooleel leen di sant bu baax di ànd ak soxna maam jaara njaay seex njaay ak soxna maam jaara Moustapha Diagne ñu bëgg a am benn discours bu ñu jàllale bu am solo ñuy ñaan ñépp maase teewlu ko ñu jariñu ci bu baax a baax waaye balaay boobu dañuy tàmbalee jotaay bi ci ay alquran di jox soxna maam jaara lay mu jàllale fi ay aaya alquran ñu doog a ubbi jotaay bismillah waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uulaa wa aqimna as-salaata wa aatiina az-zakaata wa aticna allaha wa rasuulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله soxna maam jaara lay ci alquran ju leer ju am solo jooju macha allah di ñaan yàlla yàlla barkeel kon dañuy tàmbali jotaay bi di ko doore ci soxna maam jaara seex njaay soxna jaara bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nubdatun mujizatun an daa'il nubdatun mujizatun an daa'irati xirijaati madrasa bu poroqaan almaarufatu bi alibaadati walxidmati walbirri waltaqwa laqad ta'ussisat addaa'iratu awil jam'iyya daaxila finaa madrasati sayidati jaaratullahi bi poroxaan qabla taxaruji dafati alula likay yatamakkana min alistimraari fi lamali aljamaaci awaana altaxaruj wa alayhi atlaq ala aljamaacati alqalila المشرف العام للمدرسة والخليفة العام لطريقة المريدية الشيخ محمد منتقى مكة عليها هذا الاسم الجميل الحامل لمعاني كثيرة تتجسد عمل الجماعة فيها wa hiya al ibaadatu wal xidmatu wal birru wat taqwa wa haadihi al kalimaatu al qasiira laa takaadu taxruju minha ayyu amalin turaadu minhu al xayr wa qad jamaat kullu anwaa al birr وهي تتكون من فتيات مؤمنات قانتات عابدات سائحات وللجمعية شروط تتقيد بها كما تكون مع سائر الجمعيات منها حمل اسم جارة الله المسمات للمدرسة الثاني التخرج أو المرور بالمدرسة سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة ولها إسهامات مهمة منذ نشأتها على الرغم من, من كثرة التحديات wal amaali lkabira illa annahunna xaqaqna nataaija malmuusatan fi fatratin fi fatratin qiyaasiya al injaazaat wannachaataat kama asharna aanifan annahunna yaqumna binashaataatin kasiira وأظهرن قدرتهن في المساهمة على وجه ملموس تتمثل في النقاط التالية جمع عدد كبير من الجلاء والأكوية والطنان من الأرز عشرة مخايط لتكون في المركز المعد هناك لتكوين التلميذات في الأعمال إجراء زيارة سنوية لصاحب الفضيلة للشيخ محمد المنتقى بشير والشيخ موسى مكة ناول الخليفة الحالي لشيخ مصطفى بشير مكة رضي الله عنه المؤسس للمدرسة اشتراء عدات التنظيف من مكانسات والأثواب والأحذية تكوين جمعية من الخريجات المقيمات في طوبى المحروسة لتنظيف روضة سري مصطفى بشير كما أنهن يجمعن أنواع العطور والبخور لتكون طيبة الرائحة دائما إجراء زيارات تفقدية وتبركية إلى الأماكن التالية min xur Mbàkke wa Jurbel wa daarul alimul xabiir ndaam wa min al amaakin al mashhuura taarixiyan fil muriidiyya wa lahunna aydan musaahamaatun kabiira fil yawmi sanami bi Porokhane almaaruuf bi màggal Poroxaan kama yaqunna bi taawuni kabira baynahunna min alxawaadis almulimma min musaadaat walmushaaraka maa alladina tanzilu alayhim alaxdaaf نبذة موجزة عن حياة شيخ مصطفى بشير اسمه ونسبه شيخ مصطفى بشير مكة هو أحد أحفاد الشيخ القديم البارز وهو ابن عالم العلامة الذي كان فطاحل المريدين الشيخ محمد البشير مكي ابن خادم الرسول رضي الله عنهم والدته السيدة بنت جهته بنت مخد فافال ابن مسة بنت جهته Asta Jaxate waalidu Cheikh Hamzatu Jaxate wa Cheikh Abdurahman Jaxate wa Cheikh Mbakke Jaxate wa Sayyidatu Maryamu Jaxate waalidatu Cheikh Abdul Ahad Mbakke wa Cheikh Suaybu Mbakke abna Xaadimu Rasuul wa sayyidatu Faatimatu Jaxate waalidatu Cheikh Saalih Mbakke ibnu Xaadimu Rasuul wa lahu ashiqaa hum alcheikh muhammadul muntaqa walcheikh isxaaqa mbakke walcheikh abdurrahman mbakke alladi tuwaffiya sagiran وشقيقة هي السيدة فاطمة كن مكة التي كانت قرينة الشيخ عبد اللطيف مكة ابن الشيخ مورجارة شقيق الخديم رضي الله عنه ولادته ولد في قرية تسمى دار الواقعة في مقاطعة مكة بول عام 1928 ميلادية مشواره العلمي بدأ تعلمه الأول من الحروف الهجائية على يدي سميه الشيخ محمد المصطفى مكة الصفة الأول لطريقة المريدية ثم شرع في تعلمه القرآن الكريم على يدي معلم الكبير الشيخ عبد الرحمن لو الذي تعلم منه كثير من أولاد وبنات الشيخ الخديم wa minhum waalidu Cheikh Muhammadul Bashir wa axbara bilisaanihi annahu xiinamaa dahaba ilaa daaril aliimil xabiir anna Cheikh al-muallim Cheikh Abdurrahmaan amarahu biljuluusi taxta shajarati daqqa wa qaala lahu inna walidaka qad jalasa hunaka yata'allam wa kana mata ra'a man ghadara min dari al-alim yas'aluhu 'an ash-shajara walakinahu lam yakmin ta'allumuhu al-Qur'an 'alayhi bal akmalahu 'ala yaday Cheikh Ibrahima bint Silla wa xaalihi al sheikh mawlud jaxate wa talaqa mabaadi al ulum al diiniyat wal lugawiya min al sheikh habib mbakke ibnu sheikh ibrahima mbakke kajoor kama talaqa baad al kutub al xadimiya al ilmiya min al sheikh Abdou Latif Mbacké as-saliku dhikr qad allafa kitaaban bil lughati al walafiyya fi hayaati walidihi al sheikh Muhammad al Bashir ولشدة اهتمامه بالعلم ونشره أمر أن يفسر كتاب والده منن الباقي الخديم بالولفية تربيته تربى على يدي والده ومرشده الروحي الشيخ محمد البشير الذي رباه كما رباه والده الشيخ الخديم wa kaana yaquulu lahu ana shaykhuka maa dumtu hayyan wa ba'dii man yakuunu khalifata khaadima ar-rasuul huwa shaykhuk والشيخ مصطفى قد نفذ أوامره على خلفاء خادم الرسول من لدن شيخ محمد الفاضل مكي الذي بايعه بعد والده مع إعطائه هدية مبلغها مليون وقال له الشيخ محمد الفاضل أنت أول من أعطاني مثل هذا المبلغ من المكيين وأما الشيخ عبد الأحد مكي فكان عضده الأيمن حيث وقف بجانبه وقوف هارون بجانب سيدنا موسى عليه السلام وكان ها وهكذا كان مع الشيخ عبد القادر مكي والشيخ صالح مكي كما كان له موقف محمود مع أبناء الشيخ الذين لم يكونوا خلفاءه كالشيخ شعيب مكي والشيخ محمد المرتضى مكي الذي كان يستضيفه في كثير في منازله وفي جرب الخاصة وله بيت خاص في كل من منزله مع توفير اللوازم الواجبة في تلك البيوت من نفقات وهكذا مع بنات الشيخ الخديم وقد أدى دوره نحوهن بشكل أفضل la الشيخ عبد العزيز سدبا أقام يوما خاصا للدعاء له في منزله بتواوة كما خص بيتا خاصا في برخان للشيخ باب مالك سي ابن سليم بابكر سي عند المناسبة الكبرى التي تقام سنويا ذكرى للسيدة جارة الله بوصة وهذه المناسبة بدأ يحتفل بها والده في حياته وسار الشيخ مصطفى بشير على منواله في إحيائها ولو علاقات وطيدة مع جيرانه في كولة كأسرة مام عبد الله نس والحاج عبد الحميد كان ومن علامات حسن معاملته معهم أنه كان يريد إرسال بعض أبنائه wa baad atbaa'ihi ila Cheikh Maodo Touré ibnu Cheikh al Haadi Touré للتعلم عنده وليتمكن لهم السفر إلى مصر لمواصلة دراساتهم ولكن لم يتم بقدر الله تعالى wa kaana lahu aydan alaaqaatun xasanatun ma'a as-sultaati ar-rasmiyya injaazaatuhu أنجز الشيخ مصطفى بشير إنجازات كثيرة ومنها منها تجديد وصيانة القرى التي أسسها والده الوقوف بجانب الخليفة الثالث الشيخ عبد الأحد مكي بوصفه مساعدا له في أمور كثيرة مثل المناسبة مجل توبة وكان يترك بيته وضيوفه لنجاحها إحياء شهر رمضان في جربل بقراءة وإنشاد القصائد الموجودة في فلك المشحون بحضور إخوانه والأتباع وما زال هذا التجمع الإسلامي المريد يحيا حتى الآن إنشاء مدرسة عربية في برخان التي تخرج منها عدد كبير من علماء إحياء الكتاتيب التي خلفها والده وإنشاء أخرى بناء كتاب الكبير للبنات المسميات bi sayyidati jaaratullahi buusoo fii poroxaan allati taxarrajat minha mi'aatun min xaafizaati kitaabillah wa qad abdaa farixan kabiiran ba'da an xafizat alqur'aan alkariim uulaa taalibatun fi lmadrasa وقيل إنه في آخر حياته لم تكن له همة إلا المدرسة وكان لا يدخل في برهان إلا ومر بها بناء مساجد عديدة ومنها مسجد دار المنن ومسجد برهان alladayni jaddadahumaa min baadihi shaqiiquhu alsheykh Muhammadul Muntaqaa wa masjidu Kaolack wa masjidu Daaru Salaam Tiib binaau shiqaq muassasatun xaassa li usari abnaa'i wa banaat wa ixwaani sheykhil xadiim radiyallaahu anhu إنشاء أماكن كثيرة للتربية والترقية التي تربى فيها أجيال عديدة إيصال الطريق المعبد من نور إلى إلى برخان بناء حفر المياه وإقامة سوق أسبوعي في برخان استغلال هكتارات في في ربوع الصنعاء للزراعة وله حقول وبساتين في بود وبرخان ودار المنن سالم وفي والو وغيرها التي كانت لها منتجات متنوعة من خضر وفواكه وفستق وأرز وقمح وفول وغيرها من أنواع الزراعة صفاته كان صادق الإرادة محبا لشيخه جده الشيخ الخديم وكان صالحا تقيا وذا بشاشة الوجه wa qad afna kulla xayaatihi fi libaada walxidma wa kaana da haybatin wa waqaarin wa jamaalin wa da qawmatin yuxibbu kullu man ra'aahu li shaxsiyatihi aljazaaba wa nadiifan wa munazziman wa xakiiman wa kaana yuxattitu bi nafsihi jamiica maa yuriidu an yaquuma bihi min acmaal wa kaana muhtamman bi umuuri ahlihi wa atbaacihi bil ishraafi wattafaqqudi qaliilul kalaam wa kasiirul acmaal wal injaazaat kaana yusaawiru maca والعلماء والخبراء في كل ما يريد فعله وفاته انتقل إلى رفيق الأعلى عام 2007 ميلادية في طوبى ودفن فيها في المكان الذي استعده لذلك جزاء الله عنا ورضي عنه جزاه الله عنا ورضي عنه ونسأل له المغفرة والرضوان عن ابنه البكر سرين شيخ مكة الذي توفي قبله wa an yatula umra xalifatihil xaali sëriñ Musa Naawel wa adaama sixatahu wa jamia abnaahu wa banaatuhu faadilloo ibnu cheikh mahmoud ibnu cheikh abdourahman loo daaray mam jaara kon soxna maam jaara jeng bismillah aoudu billahi min alcheytani arrajim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 Sadaqallahul Azim. Hello everyone. I'm thrilled to be here today. Today I have the pleasure of introducing you this place, Dara Mam Jaara de Porokhane. This place where every parent, every parent wants to see their child grow up. So, a brief overview of the circle of female graduates of Porokhane School. Noun for worship service, righteousness, and piety. Starch. The circle or association was established inside the courtyard of Mrs. Jarrett Law School in Porahan before the graduation of the first batch in order to be able to continue the collective work at the time of graduation and accordingly the general superintendent of the school and the general caliph of, the Muridiya or uh, Sheikh Muhammadul Muntaqa Bashir Mbaki gave it this name. The beautiful word carries many meanings and the work of the group is embodied in it, which are worship, service, righteousness, and prayer. Their short words hardly contain any work intended for good, and they, have combined all types of righteousness, and here they are. It consists of girls who are believers, obedient, worshippers, and tourists. The association has conditions that it adheres to as it applies to all other associations, including she bore the name Jarrett Law, named for the school and the second in graduation or passing through the school, whether the period was long short. she has made important contributions since its inception. Despite the many challenges, eh, eh, and high hopes, they achieved tangible results in a record period. Achievement and activities. As we mentioned it earlier, they carry out many activities and have demonstrated their ability to contribute in a tangible way represented in the following points. He collected a large number of buckets, buckets, and two tons of rice. Ten tailors to be in center prepared there for training students in business. Conducting an annual visit by, his eminent Sheikh Muhammadul Muntaka Bashir Mbake and Sheikh Musa Nawel, the current successor to Sheikh Mustafa Bashir. May God be pleased with him, the founder of the school. purchase clean, cleaning equipment such as brooms, gowns, and shoes. Forming an association of female graduates residing in Tuba Al-Mahrusa to clean the kindergarten, Serin Mustafa Bashir Mbake. And they also collected types of preference and incense to always small goods. conducting uh, inspection and congratulatory, congr congratulatory visited to, uh, visit to the historical places that Sheikh Al Sheikh Al through, including Khurumbake, Jurbel, Darul Alim Al Khabir and of the historical famous places in Merija. They also make significant contribution to the annual day in Porohan, known as Magal Porohan. They also provide great, cooperation among themselves in the, form of assistance and participation with those affected by events. Thank you everyone for giving me your time and listening and pay attention. Thank you. maa ngi nuyu mbooloo mépp du nuyu suñ kilifa yu jiital ci nuyoo bi sëñ Xaban Mbàkke ak sëñ Jili Mbay ñoom ñi nga xam ni bi jógee ci daara ja ba tey sonnuwuñ tàyyiwuñ fépp fuñ egg rek ñu gindi di ñu teg ci yoon di nuyu soxna jaare yépp ak mbooleem mi fi teew ñépp di wax rek ci dund Seex Muhammadul Mustafaa Basiiru xam naa ne lottu nañ sax nag ci wax lépp waaye nag ñu tënk ko tuuti ndax seen Moustapha Bachiru képp kuy wax ay jaar jaaram yaakaar naa fii ba fajar doo fi jóge dañ koy jéem a tënk rek Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachiru nekkoon nag kenn ci sëti sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul Cheikh Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni tey fu lislaam yegg rek moo ko fa eggale cheikh mohamadul moustapha bachir waaye juróom bu góor mi ngi tuddoon cheikh mohamadul bachiru mbàkke di doomi sëriñ tuuba waaye juróom bu jigéen mu ngi tudd soxna bintu jaxate di doomi maxuja faafaal di doomi masata bintu doon jaxate mi nga xam ne mooy doomu Cheikh Ahmadou Xafsa Jaxate ak Cheikh Hamsatu Jaxate ak Cheikh Abdourahman Jaxate ak Cheikh Mbacke Jaxate ak soxna Mariama Jaxate mi nga xam ni mooy waajuru Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ak Cheikh Souhaïbou Mbacke ñuy doomi Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul ak soxna Fatimatu bintu Jaxate mi nga xam ni mooy waajuru Seex Saalihu Mbàkke di doomi Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh mu ñoom la bokkal waajur wu góor ak wu jigéen ñooy Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak Cheikh Isaaxa Mbàkke ak Cheikh Abdourahman Cheikh Abdourahman nag dafa teel a génn àdduna ci ndawam lool ak ku ñuy wax soxna Fatimatu Kinne ja soxna Fatimatu Kinne Mbàkke soxna Fatimatu Kinne ku ñuy wax Cheikh Abdou Latif moo nekkoon borom këram Cheikh Abdou Latif waajuram bu góor mu ngi tuddoon Cheikh Mamor Diarra mi nga xam ni mook Sëriñ Tuubaa ñoo bokkoon waajur bu góor ak bu jigéen ba tey Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir mi ngi gane àdduna ci atum 1928 ca Daaru Salaam Kayem Seex Muhammadul Mustafa Bashiru mu ngi tàmbali am njàngam ci loxo waay waajuram wi nga xam ni mooy Seex Muhammadul Mustafa mi nga xam ni mooy taawu Serigne Touba di premier xalifa général de Mouride ba tey mi ngi jàngee ci ku ñuy wax Cheikh Abdourahman Lo Cheikh Abdourahman Lo yaakaar naa ku ne war na koo xam ndax bari na doomi Serigne Touba yu mu jàngal ndax moo jàngal Cheikh Mouhamadul Bachir muy waajuru Serigne muy waajuru Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir keroog ba Cheikh Moustapha Bachir ñëwee di jàng ca ndaam Daarul Alimul Xabiir seen ndaam Abdourahman Lo dani ko toogal fee ca suufu garab ga garab guñ daan wax daqaar gi ndax suufu garab googeekat saa waajur wa cheikh muhammadul bashir foofee la daan toog cheikh muhammadul mustapha bashiru fonkoon na bërëb boobu lool jox ko yitte ba képp koo xam ne ni rekk mës naa jóge daarul alimul xabir cheikh muhammadul mustapha bashiru da ko daan laaj ana suufu daqaar ga kon loolu bëgg ak yëg-yëg rek moo ko may ba tey Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir danaan jàng xam-xam xam-xamu diineem ak luxam mi ngi ko doon jàngee ci ku ñuy wax Cheikh bu Mbàkke di doomi Cheikh Mbàkke Kajoor Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye juróom Cheikh Mouhamadul Bachir moo ko daan yar lépp loo xam ne nii rek li war ci moom Cheikh Mouhamadul Bachir moo ko def ci moom comme ni nga xamee ne Cheikh Serigne Touba Xaadimu Rasul defoon na ko ci Cheikh Mouhamadul Bachir yoon woowee la Cheikh Mouhamadul Bachir jël def ko ci Serigne Moustapha Bachiru def ci moom lu baree bëree bari tàggat ko lool ci wàllu ruuxam tàggat ko ci lépp loo xam ne nii rek lu koy jariñ la Cheikh Mouhamadul Bachir comme la ko sëñ Touba defoon ci moom moom la def doom ji Cheikh Mouhamadul Bachir tey ni ko fekk maa ngi nekk ci àdduna man sa waajur Cheikh Mouhamadul Bachir maay sab sëriñ waaye nag bis boo fi bàyyi ko képp koo xam ne ni moo fi nekkal sëriñ Touba kooku nang ko def muy sab sëriñ bi fi sëriñ Bachir jógee cheikh Mouhamadul Bashir dafa jokk ci cheikh Mouhamadul Fadul bëgg ko lool fonk ko di jëfe comme nag ko waajuram moo waxee woon ba jëloon na addiya seeti bi cheikh Mouhamadul Fadul addiya ju takkoo takku ñu ngi wax ni daanaka toll na ci un million mu jox ko cheikh Mouhamadul Fadul keroog sëñ Fall dani ko ah lii de yaa ma ko jëkk a jox ci ku sant Mbàkke te yamale ko woon rek ci Cheikh Mouhamadul Fadul noonu la nekkee woon ak moom ak Cheikh Abdul Ahad Mbàkke bëggoon ko lool fonk ko mën nañ ni mooy loxoom ndeyjooram ndax foo musaana gi Cheikh Abdul Ahad Mbàkke boo xoolee ca wet ga gisul Sëriñ Moustapha Bachiru te yamalewu ko woon ci ñoom rekk ba tey noonu la meloon ak moom ci Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke ak Cheikh Saalihu Mbàkke képp koo xam ne njabootuk sëriñ Tuubaa woon muy góor wala muy jigéen fonkoon na la lool ba ci ñi nga xam ni tooguñu sax xalifa muy Cheikh bu Mbàkke ak Cheikh Mouhamadul Mourtada noonu la leen sëñ Moustapha Bachiru bëgge woon lool fonk leen weg leen ndax Cheikh Mouhamadul Mourtada moom it noonu la amee woon cofeel ci Cheikh Moustapha Bachiru ndax daka daan daka daan gane ji këram moo tax Cheikh Moustapha Bassirou fépp foo xam ne am na fa kër dafa daan defal Cheikh Mouhamadul Mourtada ab néeg te yamalewu ko woon ci ñoom rek noonu la àndee nag moom ci njabootu sëriñ Touba bu góor gi ak ñu jigéen ñi te bu bëggoon lool ak njabootu baayam Cheikh xamadul Bachir ndax bi ko Cheikh Mouhamadul Bachir wane ginnaaw dafa dajale njaboot gi dafa dajale woon njaboot gi alxemes bu jot dañ fa daan daje mu daan waxtaan ak ñoom di leen gën a gindi di leen teg ci yoon kon Cheikh Mouhamadul Moustapha ku fonkoon ak mbokk la woon te yamalewu ko woon ci ñoom rekk dafa yaataloon njabootu sëriñ tuubaa gépp la fonkoon teg leen ca kaw kenn ku nekk wàccuwaay wi nga am mu jox la ko ba mu mat sëkk ba tayit Cheikh Abdoul Aziz Sy bu mu génnee àdduna Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachiru da ko doon defal ay ñaan ca këram ga ca Tiwaawan kon lool fonk gum fonk kilifa yi yaakaar naa moo tax mu di ko def ak baaxoon lool te yaatal bëgg ñépp yamale woon ñépp moo tax Cheikh Moustapha Bachiru fonkoon na ay kilifaam lool te it yamale ko woon ci ñoom rekk da ko daan yaatal ak ñeneen ak ñeneen yu bari ci kilifa yépp ba tey Seex Mustafaa Bashiru noonu la fonke woon Cheikh Abdul Ahad Mbàkke ndax su màggalu Tuubaa masaana jot Sëriñ Mustafaa Bashiru da daan bàyyi këram bàyyi ay ganam di nekk ca Cheikh Abdul Ahad ngir bëgg bis bi lépp jàkk te noonu la ko daan defee ci ñépp ku fonkoon tamit weeru koor la woon ca njaareem ndax fulkil mashhur bi fa lañ ko daan jàng te loolu ba tay mi ngi dañul di am ndax Cheikh Mouhamadul Muntaxa Basiiru tamit mu ngi ci bu baax ak njabootu Cheikh Mouhamadul Basiiru Cheikh Mouhamadul Moustapha Basiiru ginnaaw bi fi waajuram bàyyi ko bépp daara bu mu yoroon Cheikh Moustapha Bachiru da koo dolli bu baax a baax te yaatal ko ndax bi fi waay bàyyi ko liggéey na liggéey bu rëy a ci ginnaawam ndax lu mel ni daaray soxna jaara bu sa ji mu tabax ci poroxaan Cheikh Moustapha Bachiru Mbàkke tabax na ko ndax soxna jaariyatullaahi Mariama bu sa bu fi nekkoon képp ku tudde aw turandoo danga koy daldi jox te soo ko joxee it alquranul karim lay def ci moom moo tax Sëñ Moustapha Bachiru tabax daaray maam jaara ji ci poroxaan ay maam jaara di fa jànge te yaakaar naa li nekkoon yéeneem mu ko daan waxit tey ji suñ boroom def na ko ndax newoon na daaray maam jaara ji bu ma sañoon ay maam jaara di fi jànge ay maam jaara di fa jàngale kon loolu doy na sant yàlla ndax loolee mu yéene woon doon ko bëgg suñ borom dogal na ko tey tey Seex Muhammadul Mustafa Basiiru yamut ci lool rek ku bëggoon dëkku maamam bii la di Poroxaan ndax diggante Ñooro ak Poroxaan Seex Mustafa Basiiru moo defar tali boobu ba mu baax ba mu neex a dem ñi tey tey yamut ci lool rek dafa bënn ay teen yaatal lool def fi marché marché boo xam ni nekkul ni di am chaque jour mooy marché Porokhane bi nga xam ne day am àjjuma ba àjjuma loolu lépp Seex Muhammadul Moustapha Bachir moo ko def te it tabax na fi ay jàkka lu mel ni jàkkay Daaru Minam tabax na it jàkka ji ci Porokhane Seex Muhammadul Muntaxa siiru ñëw yeesalaat ko tey tabax na jàkk ci kaw Kaolack ak fu ñuy wax tiib kon Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachiru yaakaar naa matale woon na léppam ba tey Cheikh Moustapha Bachiru ku fokkoon lu baax la ku bëggoon liggéey la woon ndax bari woon na ay tool loolu lu mu daan def ci dëkk bi ak ay gendarme lu mel ni Poroxaan def na ko fa ak puut ak daaru minam saalum ak waalo kon sëñ Moustapha Bachiru yaataloon na lool ba tey sëñ Moustapha Bachiru nekkoon na koo xam ne nii nit ku dëggu la nit ku ragal yàlla la woon nit ku bëgg sëriñ Touba may maamam ak jabootu sëriñ Touba gépp Cheikh Moustapha Bachiru nit ku sell la woon nit ku ragal yàlla nit ku fonk jaamu yàlla suñu boroom nit koo xam ne nii doonoon na nit koo xam ne ku am taxawaay la nit ku amoon ab taar masha allahu ndax Cheikh Moustapha Bachir foo ko mësaana gis rek xar kanam nga day benn nit ku fonkoon ab liggéey la woon Sëñ Moustapha Bachiru daawul wax wax ju bari Sëñ Moustapha Bachiru ku bëroon ku bari woon lu muy jëf la woon ndax macha allah boo xoolee liggéey yi nga xam ne nii liggéey liggéey na ko fi liñ liñ ci jaar lu bëree bëree bëri ak jàmbaar leen la ak fonk lu baax tey daawut def loo xam ne nii da ci daan réeroo ak ay mbokkam déedéet lépp loo xam ne nii bëgg na koo def da ci daan waxtaan ak ay mbokkam daan ci waxtaan ak kilifa yi daan ci waxtaan ak boroom xam-xam yi comme Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachiru dundam gépp da koo def ci jaamu yàlla Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachiru kon yaakaar naa dundam gépp ci jaamu yàlla la ko def ak liggéey loolu rek la xamoon Cheikh Mouhamadul Moustapha mu ngi génn àdduna ci atum 2007 ca Touba ñu denc ko Touba Daaru Minam mu nekkoon bis boo xam ne nii bis bu métti la woon bis boo xam ne ni ñun soxna ma soxna jaara yi bis bu métti woon ci ñun lool ndax ñu mam jaara yi xamuñu pour Serigne Moustapha Bachiru bëgguñu it ku dul moom ndax Sëñ Moustapha Bassirou melal na ci ñun noo xam ne nii mën naa ne suñuy waajur sax melañu ko ci ñun ndax Sëñ Moustapha fu mësaana toog ba mu yàgg daraan ñëw ci daara ji di ñu nemmiku di xam ci lu ñu ne ba yoonam bi nga xam ne nii moom la mujjee ñaw ñu nekk ay tuut tànk ndeke yoon boobu sa Moustapha Bassirou da doon tàggoo ak ñun taxaw ak ñun di waxtaan ak ñun lu yàgg ni en soxna jaara fu ngeen mën di nekk maa ngi ndax yéen a ma gënal samay doom kon ñu seen Moustapha Bachir amuñu fayam ndax yéen a ji amoon ci ñun say Moustapha Basiiru ka amoon yéene la ci man jaara yi ndax bis boobu bis bam ñi mujjee tàggatoo ñun ni yéen soxna jaara yi fu ngeen nekk maa ngi seen biir yéena ma gënal sama njaboot dinaa leen sori lool waaye na ngeen xam ni fu ma mën di nekk rek maa ngi seen biir xay na ñun ñoo ko dul gis waaye moom toll mi ngi ci ñun mi ngi ñuy gis kon Mbàkke dañ koy ñaanal suñ borom yokk ay leeram te taas ci barkeem ñu di ko ñaanal lépp loo xam ne ni def na ko ci ñun muy alxuraan bi ci ñun lépp luñ ci jàng rek ak luñ ci xam sa yàlla na tiyaaba ji di fekk Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachiru xam ne yàlla fayal di ko gën di fay ci barkeb alxuraanul karim may wàcc foofu sama kàddu te xam ne lépp lu ci jub rek suñu boroom la lépp lu ci jë dëng rek ci jumtak doomu aadama la yore ngeen jëf yal nañu ko yàlla fayal li des rek mooy ñun nañu tege ci yoon ba bu ñu fekk sëriñ Moustapha mukk di rus ndax yéene ji mu amoon ci ñun def ci ñun éducation boo xam ne dañuy génn di ko tasaaya ci àdduna ndax ci yéeneem jooju moom Cheikh Moustapha ak pas-pasam boobu ak bëggam maamam soxna jaara ci la xalaatee xalaatam bii nga xamante ni mooy taxawal daaray maam jaara laaj turandooy soxna jaara yi fii ci poroxaan ñu indi leen fi ñuy jàng alxuraan muy fàgguteef gu rëy goo xam ne képp ku ci yàlla boole rek am ngaw sas woo xam ne danga koo war a bay mbay mi set moo xamante ni doo sonn doo tàyyi doo bëgg dara ca bàyyil xel ci ni fa nga nekk dara loo fa def ci safaan rek tooñ nga sëriñ Moustapha Bassirou ca tooñ nga daaray maam jaar ndax dem ba ni ñun ñoo ko gënal ay doomam ak doom ni mu neex ci xol ca bam koy wax ku ne xam na ni yéene ak pas-pas la ko waxe ndax loolu waruñu koo fàtte kon ñun dëggal ak jubal ak leeral rekk moo ñu war lii nii soññee la ci bépp maam jaara bu fi teew tey boo delloo fa nga nekk loo mënoon ci lu baax yokk ko loo daan def ci lu baax yokk ko bu la kenn jàngal lu baax ndax yéen jooju la amoon moom ñun ñu nekk ay royukaay fu mën di nekk ca bu ñu xoolee ku mel ni soxna ma awa dem heure bu ñu ko siyaari loolu dinañu ko fàttali yéen dañ leen a war a roy walla waroo leen a roy kenn kon bu ñu xeeb suñu bopp ndax sëriñ Moustapha ci ak dogoom dafa wax ni bépp maam jaara boo xam ni jaar nga ci daara ji fépp foo mën a nekk taw feex rek nga fay am kon bu kenn xeeb boppam bu doonte benn fan nga def ci daaray maam jaara xamal ni fa nga nekk ñu nga lay bàyyi xel bul xeeb sa bopp bul def dara lu ñuy ba daaray maam jaar ndax ñun loolu waruñu bu dul woon jaar gi ñu jaar poroxaan tudd maam jaara day aw sas tudd maam day aw sas day soññee boo xam ne képp ku ñu ko tudde rek yow war ngaa war ngaa tiit ci sa bopp ndax la tax nga war a tiit mooy yow kenn warulaa gis ci dara luy safaan danga war a góor góorgóorlu bu baax a baax kon soññee bi am na solo jotaay bi am na solo xol yépp tooy na waaye dañuy ñaan yàlla suñu boroom lépp loo xam ne jàng nañ ko fi ci ay kaamil yàlla nañu ko yàlla suñu boroom nangul fulal ñu ko tuyaaba ji ak yiwu yépp àgg ci suñu jàmbaar jooju Cheikh Mouhamadou Moustapha ak mbooleem ku nekk barsax kon dañuy tëgg foofu kàddu yi di soññaat suñu bopp di soññaat soxna jaare yépp di santaat bu baax ñi nga xamante ni jëwriñ kilifa yi nga xamante ni ñoo féete ca daaray maam jaara ndax dañuy wax feccum liir bu neexee yaay jaa jàpp ca mag yi bera sant tamit suñu ay waajur suñu ay yaay ak suñuy baay ndax tey xolum nangu bi ñu am sëriñ Moustapha laaj ay soxna jaar ak poroxaan ni mu sore ak doom bu jigéen ni mu yëramtaloo nga am xolum jël sa doom joxe ko kon suñu waajur yi tamit amuñu seen fay ndax bari na ay soxna jaara comme ñun bëggoon nañ ko ca seeni waajur xëy na yàlla dogalul ñu indi leen ci liggéey bi kon suñu waajur yi yal na yàlla yaa jëf lu kenn jëful yaa am lu kenn amul yaa man lu kenn mënul maam njaaratulaay yaa gis lu kennu gisul yaa xam lu kenn xamul penkook sowook ñépp cey jaaratulaay